ko atum 2021 waxoon na ko journal bi di Rewmi Quotidien xëy di ko fàttale ndax nee ci conférence de presse boobu Ousmane Sonko dafa waxoon ne Macky Sall minorité la ci réew mi maanaam ñi ëpp ci askanu Sénégal ànduñu ak Macky Sall Ousmane Sonko waxoon ne maanaam Abdou Diouf élégance bi nga xam ne am na ko Macky Sall amu ko grandeur bi Abdoulaye Wade am Macky Sall amu ko Ousmane Sonko ne leer na ko ne Macky Sall mii maanaam ni nga xam ne moom la Abdou Diouf joxe woon ngu gi ak ni joxe woon Macky Sall du ko joxe noone ndax amul élégance bi amul grandeur bi Macky Sall nag li mu bëgg mooy fexe ba indi ak pëccëxoo ab réew mi ngir nag man koo layee man koo taafantaloo ngir dàq élection présidentielle 2024 ci élection yoo xam ne moom ci boppam amul sañ-sañ daal di say te nag Macky Sall pare na ngir def lépp ngir toog ci réew mi loolee kàddu yu Ousmane Sonko la yoo xam ne ma ko waxoon ci atum loolee moo tax journal bi nee na lu jëm ci wàllum dàq élection yi ndax Ousmane Sonko mi nga xam ne moo ko njëkkoon na junj ndax amul dëgg yéen kay gi di enquête xëy di ne ak ñi nga xam ne ñoo ci faatu tuuma yu yëpp mu jël ko gàll ko ci ndodd Ousmane Sonko ne mooy responsable journal bi nee na bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ñi nga xam ne ñuy waa police ak waa gendarmerie ñoom dajale nañu yoo xam ne day sarse Ousmane Sonko maanaam ay yoo xam ne day wane ne luy njiig Ousmane Sonko mooy njaaka maanaam preuve xam ne day wane ne li xewoon ci réew mi lépp Ousmane Sonko ko sooke preuve yooyu nga xam ne ñuy waa police ak waa gendarmerie dañu ko bëgg a jël jébbal ko procureur yéen kay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñi nga xam ne ñuy waa Pastef ñoom tim tontu nañu procureur ndax nee nañu procureur bi yàgg na leen a song procureur bi yàgg naa génn di def ay attaque jëmale ci ñi nga xam ne ñooy waa Pastef waaye nag yàlla baax mbooleem song yi nga xam ne procureur bi parquet bi ma koy def jëmale ci Pastef lépp daf ci lajjee parquet bu Ndakaaru comportement bi nga xam ne moom la ñu amee comportement la boo xam ne maanaam ku la ak koo xam ne tëddeewul njaxanaay te tamit dafay firndeel ne Macky dafay instrumentaliser li nga xam ne moo jëm ci wàllum yoona waaye nag lépp ngir nag bëgg a toogaat ci réew mi am benn mandat te loolee dafa bëri ay incohérence ay wax joo xam ne ay waxi ndaxasaxandang wala sax ay waxi kasaw-kasaw yéene kaay gi du source ñu xëy fekk fa Ibrahima Bakhaw muy wax ci lu jëm ci média occidentaux yi nga xam ne jamono ji dañoo intéressé wu ci Sénégal ba li nga xam ne moo fi xew maanaam presse étrangère bi di ko wane Ibrahima Bakhaw ma xëy na di ko faram fàccee nee li nga xam ne moo ko waral maanaam mooy média yooyu nga xam ne presse étrangère bi dafa am ay nit ñu am doole ñoo xam ne ñoo ko mooma nekk ci privé bi te ñoo ñee dañoo bëgg gagné ay marché ndax jamono ji dañuy bëgg bokk ci nga xam ne ñooy tax soppar ñi ko am ci réew ëllëgee maanaam ñu man leen a sédd maanaam presse étrangère bi ñoom jamono ji daal dañoo bëgg ñëw bokk ci combat bi jàppale gars yi jàppale askan wi bu ñu demee nag ba nguur gu soppar ñi defee ñoom ñu mën a gañe ay marché mën a bokk ci mbir mi yéen kay gi di vox populi xëy duñu xibaar naan ñu coalition yeewu askan wi jamono ji ñoom nag takku nañu taxaw nañ ba dëggëra nee nañu musiba ak giraawwàll yi nga xam ne moo fi amoon ci manifestation yi nga xam ne moo tax waa coalition yeewu askan wi ñoom nag ñoo ngi jébaane état foofu ñoom li ñuy sàkko mooy ñu leen nag ab commission d'enquête ci ni mu gën a gaawee ci réewum Sénégal yéen kaay gi de Le Quotidien yor yora ñu koy fekk fa professeur Mamadou Diouf di jàngale ci université bu Colombie daan nay wax ne li nga xam ne jamono ji maanaam moom la ñuy def ci réew mi dëbbal dëbbal yekk lépp wiiri wiiri yi maanaam lenn rek la maanaam ngir bëgg a ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko moom Mamadou Diouf jàngalekat bi daan nay bi demuñu ci dialogue bi maanaam ñu bi de La ñu koy fekk wax ne Macky Sall am na ñaari possibilité ngir nag régler mbiri Ousmane Sonko bi ci njëkk mooy jël mbirum corruption de jeunesse yóbbu ko assemblée nationale ñu daal koy supprimer ndax lu jëm ci wàllum corruption de jeunesse lu yàgg la Macky Sall tamit mën naa gracier ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko maître Doudou Ndoye nee na loolee bu ñu ko defee maanaam dal mën naa am yéene kaay gi di direct news xëy diñu xibaar ñu coalition Yewwi Askan Wi ñoom jamono ji ñoo ngi pousse Khalifa ab xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum dialogue national bi gars yi nga xam ne ñooy acteur politique yi li ñu njëkk a song mooy lu jëm ci loi parrainage bi ngir nag ñu daal koy jubbanti waaye ñu xoolaat bu baax a baax lu jëm ci wàllum système contrôle parrainage yéene kaay gii da lay zeko xëy di ñu xibaar naan ñu ci dialogue national bi am na benn commission boo xam ne bëri na ay personnalité yoo xam ne bi ñu leen tànnee dañoo lànk commission politique bi commission politique bi bëri na ay personnalité yoo xam ne dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa bañ koo jiite yéene kaay gii di réew nga xam ne ñooy frappe ñoom gii Mari mi fukki fan ak juróom-ñaar jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin ndax ñoom li ñu bëgg jamono ji jéngi gi ñu jéngi Ousmane Sonko ñu daal koy bàyyi waaye nag ñi nga xam ne ay détenu politique la ñu daal di waaye Macky Sall ci boppam daal wax publiquement ne du bokk ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu ma la waaye signalu Walf Fadjri ñu ko yéen kaay gi nee na ñi nga xam ne waa FRAPP ñoom nee nañu fukki fan juróom-ñaar ci weeru juin maanaam ci samedi H&M di jàpp yaa ngi mel ni tulleeg lii nag risque bi nga xam ne moo ci nekk kaso yi ñoo nar a fees dell yéen gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu jàpp gi nga xam ne ñoo koy jàpp faranoy Ousmane Sonko yi mbir maa ngi mel ni tulleeg màlle ndax Babacar Camara ñu gën koo xam ci Issa teg nañu ko loxo ginnaaw raay ci Dakar Ousseynou Sarr moom tim teg nañu ko loxo ci diwaanu Thiaroye ngañ dem bëggey ma ngi cib garde à ku ñuy wax Pape Thiam moom tim ma ngi cib ñu Sénégal banque mondiale daan na koy jox lu toll ci 182 milliards yéene kaay gi nee na signature Sénégal ba léegi ma ngi crédible yéene kaay gi de la turbine nee ci Sénégal rek la gis koo xam dafay leb ba pare di ko ndamoo ak di ko bokk waaye nag leb goo xamante ni maanaam dafay gën a ndóolal askan wi yéene kaay gi de la Soleil xëy duñu xibaar ay njiitu ci dindu Afrique ñoo fas dem ca diwaanu Ukraine ak ca diwaanu Russie ngir ma njiitu réew ko laaj nee leen ma nga gi la nee na Macky Sall tey ji Russie ngir bokk ci ñi nga xam ne ñooy lijjante jafe-jafe yi nga xam ne moo am diggante Russie ak Ukraine aya bi sa sata la Cruz yéene kaay gii di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum ki gran gi nar naa gëllu góosee ndax xar yi jamono ji cher na ba maara détaillé te nag xar yi ni mu doon bëree xar yi bëreetu ko li ko waral mooy tension bi nga xam ne moo am ci réew mi yéene kaay gii di la turbine nee na waxuma la xar yee cher wala xar yee manqué waaye pomme de terre ak soble sax jamono ji dafa yokk ba maara détaillé société nationale d'électricité